salaam taabati taabati déglu yi. waa ji siyaar naa la baax maa ngi gis ngay bind interdit saa audio mais saa audio yi baax na sama waaj ji parce que xamal tam baax maam lii de tax képp ko naroon yërëm Adji Sarr wala nga naan Adji Sarr victime wala dara rek dana tax nga jinnaat quoi parce que dina tax nga xam ne kii li muy def lépp moo ko tey li koy Sénégal di yërëmee ak di ko xalaat lépp nekku ci Adji Sarr musta nekk victime man nga ne au début victime loolu de mais léegi parce que instant yi bi bu mi nek di ko mane nii mu suko imaginé ci aduna bak alxuraan ke moo tax li bëgg mu jeex ku ne bëgg na mën naa bëgg mu jeex mais Adji Sarr bu sañul yi du jeex la lo du jeex quatorze mor mo ci amade mais mom bu sañul ay centaine de bakkan mën na cee mën naa mën na mais du tax mu bàyyi parce que bi bi mi mané jëmono ji mu suko imaginé ci aduna barki alxuraan ke moo tax Sarr audio dafa baax ñu koy partager parce que dina tax kep ku ko noonu a ëmbal wala nga ay ki victime la ay li nekk dañ ko ci dañ ko ci dugal nangam sàngam dina tax nga nga bàyyi wax boobu quoi